dañu ci àndal ak ña ko doxal seen bopp ñoom ñëpp danañu wuyu ci yoon ngir ñu mën a fànq lu mel noonu ndax lu yàq réew li ci des itam wane naa ne réew mi dañ ko war a waxtaane dañu war a di diisoo ci lépp loo xam ne dañu ko bokk loolu waraloon diisoo bi ma yëkkati fan yi ñu génn ñu tuddee ko dialogue national yàlla def ñëpp ñu si bëggoon dugg te ñu solo ci réew mi yàlla def na waxtaan nañu ba juboo am ay conclusion maanaam yu ama am solo ci wàllu koom ci wàllu euh, sociale ci wàllu culture ci wàllu politique ba nga xamante ni loolu dina gën a dëgëral suñu démocratie ponk yooyu nag ñu tënk dinaa ko doxal à partir de semaine bi ndax dinañ yóbbu assemblée nationale loi yi ñu war a soppi ngir li kuje gi ñaanoon ci wàllu parrainage yu ak yeneen i changement ci code électoral ak yeneen i loi ñu mën ko def ci diir bu gàtt loolu yëpp parce que diisoo moo ko waral parce que luy jëmale Sénégal kanam li ci des itam wax naa ni réew mi fi mu toll ak alal ji fi feeñ dina gën a tax nit ñi bëgg ñëw Sénégal wala am luñ fi def ci fànn bu nekk na ba ci diine ji loolu dafa jar a bàyyi xel moo waral ma ne man sama taxawaayu démb ak sama taxawaayu tey benn lay doon muy taxaw ngir aar réew mi ci wàllu indépendance am ci wàllu ay frontière am ci wàllu ay institution am yi nga xam ni démocratie moo ko fi teg te loolu duñu seetaan mukk ñu koy yàq ak lu mu mënti jar donc loolu nag yëg yàlla ngi may bakkan fii yëg mandat bi ñu jox ñu ngi koy doxal na leen leer ne dinaa si taxaw taxawaay yu wér ànd si ak ñëpp ñi nga xam ni ñoom laa ci war a àndal ginnaaw loolu mbokk yi nee na mbirum élection yi di ñëw coow li bëri na coow li bëri na euh, d'abord may rafetlu ñi nga xam ne dañu ànd ak man ak bëgg ma toogaati bopp réew mi wone ko ci anam yu bare bare ci région yu bëri ci réew mi yëpp ci diaspora bi wane ko ci coalition bi muy coalition Benno Bokk Yaakaar ma santaat leen gërëm leen wane ko ci parti bi ma taxawal muy alliance pour la république bëri na ñoo xam ne sax ay kilifa diine lañu ay citoyen tout simplement jàpp nañu ne fi réew mi toll président war na mën a taxawaat surtout que am na ci yoon yoon may na ko ko muy constitution bi ndax lu leer la 2016 bi ñu ko defee 2016 bañ ko defee conseil constitutionnel ci boppam moo joxe woon ndigal ngir ñu dindi disposition transitoire bi ma ci defoon ngir ñu mënoon compter mandat bu njëkk bi loolu nag donte am naa droit bi donte itam ñu bare bare bare seen sago moo doon tey ma taxawaat dama jàpp ne man sama wareef ci Sénégal defar ko la du lu ko yàq du ma mos bokk mukk su luy delloo Sénégal ginnaaw sama wareef mooy gis lii ma tàmbali fekk ko fi yóbbu ko fu ëpp fi ma ko fekk loolu ñu teg ci leneen loolu mooy li may neex loolu mooy li nga xam ne moo ma tax a jóg kon réew mi suñu coalition war nañu am bu ñu àndee nekk benn a teg équipe yoo xam ne si dinaa leen jàppale itam li ma leen war a jàppale ci waxtaan ak waa réew mi ngir ñu moytu li nga xam ne dana tax Sénégal saaraan ëllëg dugg ci guuta goo xam ne du gën ci njaboot gi du gën ci askan wi kon sant naa ñooñu gërëm naa leen waaye nee naa nag élection yi di ñëw bind naa ko ci livre bi ñu tuddee le Sénégal au cœur Sénégal sama biir xol la boo ko gisee di ngeen wax am ni ne woon naa mandat 2019 bi mooy nekk sama deuxième et dernier mandat ça ne veut pas dire ma ci droit mais loolu sama décision bopp la te loolu laa jël tey moom laay baamtuwaat dont nag gis ngeen ay groupement ay nit war nañu Sénégal dem bitim réew yàq deru Sénégal yàq deru président de la république dafa bëgg a def ñetteeli mandat dafa bëgg def lii dafa bëgg a def laa loolu kon war na mën a dakk ndax président ci boppam jàpp na ne li mu bind 2018 dëgëralaat ko tey loolu taxul maanaam coow yooyu taxul waaye ñaawlu naa li nga xamante ne bëgg sa bëgg-bëgg tax na nga dem di jaay sa réew ak di yàq deru sa réew ah nit ki booy wut tam da nga boole ngor parce que loolu dafa am solo li ci des mooy ñu continuer suñu taxawaay ci réew mi continuer